salaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. mbokki jullit yi mbokki taalib yi salaamualeykum wa rahmatullah noo ngi leen di nuyu fii ci kër Cheikh Mouhamadul Muntaqa xafisahu llahu wa raahu wa ayadahu wa nasara di ñëwati rek ci ni mu ko daan defee ci waxtu bu nekk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 sëriñ bi sëriñ bi. lu nu mat a ñaanal. lu nu mat a ñaanal. tey ëllëg. tey ak ëllëg. bi ñaanal nañu ko. sëñ bi ñaanal nañu ko. borom nangul na te borom nangul na ko. kon nag kon nag. li war li war. nan sax ci wéetal yàlla nan sax ci yàlla. sax ci jaamu yàlla sax ci jaamu yàlla. sax ci sant yàlla. sax ci sant yàlla. sax dàkk ci loolu. sax dàkk ci loolu. li ci des nag.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 li nga xam mooy sunnatullahi fil ardi mooy walaqad fatanna allazina min qablihim fa la yaalamanna allahu allazina sadaqu wala yaalamanna alkaasibin naka jëkk sa su adduna masaan dem ba agsi fii dana wàcce am natt boo xam ne doo koy jëmee ci nit ñi loolu nag moo xam la tax mu def ko jublu ci dara nag lu may faral leen seeni rëcc-rëcc ak yokk leen ay tuyaaba kon nag bu nattu agsee na ko ñëpp delloo ci yàlla ngir xam ne fa arsalna alayhimu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 ci la daal di tàmbali joxe ndigal fépp fu ne ñu di fa jàng alxuraan ci jàkk yi ci daara yi ci barab yëpp ba ndigal loolu moom daanaka ba bisub tey nit ñaa ngi koy def beneen bi ci des muy wàllu dimbalante ci diggante taalib yi ak diggante jullit yi luñ ci doon def sëriñ bi bëgg nañu yokk ko ndax kat nit ñi toll nañ foo xam ne aajo woon nañ ko toll nañ foo xam ne it itte woon nañ ko